moo ko xañ les faits sont sacrés le commentaire est libre. waaw je pense que chroniqueur aussi dafa bokk. ci nga xam ne moom mooy. paysage audiovisuel mais kan moo ko xañ kan moo ko xañ euh, lu baax moom su ñëpp fii ñu fi nekk ñëpp ah ku yàlla dimbalee fi nekk kenn mënul dara. Mhm. mais ñu mais wax ju bon it dëkkul foo mu jëm foo mu jóge la cosaanoo taxaw di xaste Sénégal ñun ñëpp ko bokk. Sénégal ki bon tey mooy baax ëllëg ki baax tey xëy na mën naa bon ëllëg mais nan jàpp ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay suñu doom yi ñooy sëy ëllëg mais taxaw rek euh, di doo wax mukk luy luy defar réew yow doo doo wax lu positif lu négatif rek la ñuy wax c'est pas bien. alors est-ce que est-ce que war nañ circonscrire sax euh, débat bi foofu. xam naa mhm. dinañ ci ñëwaat parce que sànq da nga mhm. wax lu am importance peut-être président de la République am na mbëbët euh, pour euh, defar Sénégal mais peut-être na xoolaat ci ci entourage mais dinañ ci ñëwaat ma dem ci per père Mbaye Mangoné parce que sànq aussi bi ñuy wax dafa wax ne que lu mu déggoon ci li mu déggul ci ci ci ci làmb ji amul. ñu bëggoon yow tamit papa nga analyser ñu un peu làmb bu ñu génn parce que sénégalais yu bëri dañ ci génn ak déception. di la gërëm di la sant ci question boobu nga ma posé léegi làmb yi ma ko dajee yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci làmb jëmm ji toog la dama géré claafam ay claafi claafi claaf dafa wax ak yéen sànq te déggul leen ko mu ne leen la ma fi bàyyi woon laa fi fekk mbër yamu fi bàyyi woon defar leen dugal leen kalaaf ba tax nu génn ay Tapha Tine Yékini Junior Lac de Guerre ay Eumeu ay mbay Diouf ay Balla Gaye ñooñu ñoom ñoo fi nekk tey ñoom rek la fekkat ban mbër moo génn mbër moomu d'accord mi ngi poussé pour atteindre le plus haut palier mais ñoom mbër yi considéré wuñ ko c'est pour tourner autour du po muy regret moom la fi bàyyi ci ak ngune mu poussé ba atteindre ba palier bi actuellement effectivement li mu wax moom dëgg la waaye làmb ji nen ne dem na ba toll foo xam ne dafa am loo xam ne doon koo séentuwutoon ci kombaa bii lan mooy doxalin wi nga xam ne moom la combat bi doxee bii waaye nag béttuma woon ndax plateau bu ma mës toog sun ma laajee nee naa leen boobu du sama combat du sama combat li tax du sama combat ki nga xam ne aw maninam da koo bàyyi te nee na ba nga daan wattu démb ak bërki démb jubb boobu soo demee ba dindi ko kenn dootu la xàmmee Lac de xeex nan ko xamee limal naa la contre Batika limal naa la contre Khadim Diallo limal naa la contre Nees limal naa la contre Zos limal naa la contre Issa yi bu ci nekk day ñëw rek jëf li muy jëf diirub loolu gisatuma mu xeex gisatuma mu xeex gisatuma mu xeex ba keroog digganteem ak Eumeu Sène noonu la mujj demee ci mbër moo xam ne da ngaa bëre ak moom match nul bëree waat moom mu daan la nga war a ñëw jàkkaarloo ak moom muy ñaar ñuy dàqe su ma jàppee tey ma dee ak su ma ko jàppee tey mu dee ñaar ñoom suñu diitlee kan moo war su ma jàppee tey ma dee ak su ma ko jàppee tey mu dee ñoom ñaar suñu duutee fa fan nanu war a jëm Lac moo war a ñëw wut si duma la xaar doonoo niil nu dellu si nga daan ma nu fayaat nu xaalis boo xam ne kenn mësuñu koo fay ci làmb pare ne la su combat bi jeex koo laaj ñu jox la man dinaa def effort foo nekk ma jëli la soo gisee ma ne ko dangay ngay bëree ak rëg-rëg faaw contact dina am moog rëg-rëg su ñëwul su ko xaaree tuuti rëg-rëg su ko dégloo gisu ko ma nga ca kawam ndax moo ëpp doole keroog xoolal moo gën a jekk ci gàllaaj moo ëpp doole gën a jekk ma sax wax na ko nee na am naa chance bi nu ma doorul ma daanu ndax xam naa lu ma nekkee ak ba may ñëw mais moom nit nag su fekkee am nga doole te munoo koo jariñoo wala xamoo nu ni jariñoo sa doole ah soo taxawee ne ma deux mille deux mille lan ndax vingt et mu ne roi des arènes wala waxul loolu barki dem ah 2021 roi des arènes di nga daan booy ñaa di daan Modou Lo bu Rock énergie di nga daan Eumeu seen di nga daan Reug Reug di nga daan mbër yi fi taxaw doog a nekk roi des arènes te mbër yooyu yëpp ku dugg seen circuit bëgg bëri ñoom bala ngaa suttal di nga daanu Balla Gaye Eumeu Sène Boy Niang Modou Lo bu Rock énergie Reug Reug bala nga leen di boole ci lenn ngemb di nga daanu nu jàppale rek moo fi nekk làmb ji kenn mënu fi <laughs> nen waaw ah. alors euh, xam naa dinañ dinañ ñëw parce ñu may signaler léegi papa maa ngi ñëwaat ci yow que euh, euh, dañ doon euh, seentu weer bi comme ni ñu koy defee at wu nekk foog na ni sànq sax yaa ngi koy brève <laughs> amaana ni loolu la ñuy signaler ni gisuñu ko kon sûrement koor gi mercredi lay doon. mercredi lay doon voilà ñu ngi ko doon xaar ñun ñëpp en ah, papa. Hmm? ma ne xam naa koor gi kon mercredi lay tàmbali incha allah parce que ñu ngi doon seentu weer bi may gisuñu ko. waaw man de <laughs> man de doom Fall sant waaye kooku sant Mbengue moom <laughs> moom. mu ngi nii ñoo ñu déglu soo demee këram moom lépp nan lay taaj. ñu déglu leen ñëwaat ci plateau bi. gisuñu ko Kaffrine gisuñu ko Matam gisuñu ko feneen fenn nulle part dans le pays gisuñu ko kon dañu jàpp ne dañuy mottali benn fan ëllëg incha allah bu gannaaw ëllëgee ëllëg di talaata. bu gannaaw ëllëgee ci àllarba ji mu doon benn pan bu jëkk ci koor gi yal nañ ci yàlla yóbbu nu ñaanal kilifa yi voilà mu ngi noonu kon euh, mercredi incha allah donc Père Gaston dafa mel da nga doon wax ni que euh, <laughs> suñu papa yàkkamtiwul <laughs> yàkkamtiwul koor gi commencé ah papa. <laughs> ak mbeng la sant moom ndogoon nañu këram ba tey moom ak Max Margane moom xam nañu ñun xam nañu. xam nañ xam xam nañ nga xam uh-huh. mais doguma la. Uh-huh. làmb dafay toll foo xam ne dafa demoon ba suux une année kenn déggul dara. ndënd sàjjiwul mm-hmm. fii ñu bari toog na fi ñu ma daan gis ci làmb ji jooy. ne wax leen président Macky Sall ne fi mu ne dematunu mu métti woon lool lool. lool métti lool. muy def ay man-manam di yéeg di def ay dibi dibi ba génnee combat ñu ne ndax dina sunu borom ne alhamdulilah rabbil alamina ginnaaw mesure yi nu wax yépp ne dinañ ko jël ndax Covid bi rik waaye na ngeen fexe ba jël ko. stade bu toll nee nu tabax ko jàpp ko di ko duy di ko duy di ko duy ba kenn amatul foo dëgg ab tànk stade boobu gis nga ni meloon ndax mën nan maa indi stade bi génneel ma stade bi soo ko mënee Bakary Banora. maam Sidi génne leen stade bi. père père père gis ko. père kon père pertul de. de. Gaston lu nekk dina ko wax. xam naa ah, ah, ah. sa micro. non stade BRTS kay nga xam nga stade bi ni nga ko waxee ma mel ni dañ maa ma gagné perte sama man daal xam nga man Gaston Production la mbay mbay mbay man foo ma tëgee làmb liñ may wax ndax perte xanaa bi yoon perte mel ni man daal perte rek lañ ma yéene mais perte la yéene xam nga yow non non non perte rek en matière de mobilisation ak organisation nag quoi quoi qu'on puisse dire faut le dire. waaw euh, pari pari organisation yu réussir nga ko. macha allah stade bi keroog buñ ko buñ koy xool ci vue aérienne bi. macha allah euh, rien à dire mais dañ lay yéene. ñu bëri ñu ngi doon seetaan naan ah bii père moom yàlla bu mu perte. Ah, te chiffre d'affaires yi lañ a xam. lan may rek mais xanaa bii pertul. mel ni daal perte mais bii moom perte moom xanaa perte moom. Euh, ah, ah, stade bi feesoon na mais euh, dama gisoon ne également père euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di presse en ligne bi mu mel ni am na ñu bari dañoo naqarlu woon lu tax nga zappé leen ci kombaa bi lan moo waroon nga doxalee noonu ak. dootu ma ne dootu danaa ko ne di leen zappé. alhamdulilah ba nga laajee loolu. <laughs> xam nga àddina nit ñi dañu war a raisonnable te jàng liggéey et liggéey honnêtement xam nga man 92 ba léegi ñu bëri jaar nañ sama sama ginnaaw di dóor bu baax ci samay événement <laughs> événement ñëpp xam nañu li muy jar ñëpp xam nañu li mu mën a indi léegi koo gis am na sit di wuti vue di jëkkante vue yu bari di jëkkante ristourne ci ci yow dépensé woo dara nit ñi dañ ñu ngi ciy dund ci kaw nit ñi yow su suñu sañoon ngay tëgg bis bu ne yow pertal ñoom pertul mais ñu am meneen pexe mu nuy wut pour gagner de l'argent muy perpervue bi moo tax bii passé ma ni télé yi ma accompagne yëpp doon télé bii da ngeen di occulter l'international ku nekk bitim réew bëggee seetaan combat bi day fay ca ca beneen yoon ca loolu li tax ma fayloo may ko waa Sénégal parce que sama kàddoo ma jiitu woon ndax huis clos la ñu naroon def bi ne dañuy def huis clos ma ne comme engagé wu naa ba pare dama koy may ñi nekk biir Sénégal yépp fu nit toog soo amee TNT seetaan mais doo ko seetaan ci canal moo tax sama partenaire télé yépp dama leen ni kenn du ko seetaan ci canal nit ñi borom site yi commencé fay parce que ñoom télévision yi sax mënatuñoo liggéey lan daan am amatu ca télévision yi dañu am personnel ay centaine de personnes yu ñuy fay làmb ji di fay ay centaine de millions ñoom seen benn caméra su ndaw lañu ñu yor fees dell ci géew bi doo gis kenn du gis sax li mbër mi wala suñu ko bëggee defal dara ba pare ca di ci gañe ba pare ni nag ni kenn duñu empêché liñ ciy gañe ñoo ngi koy suñu bëggee nañ tëgg làmb ñoom nan ko di tëgg sama làmb site dootu fa dugg eh, ku ko bëggatee seetaan toog sa kër da ngay fay parce que làmb ji di ñëw même perpévu dañ koy def ci biir Sénégal